buñ ni nettali maam yi ak njàmbaar ga maam yi defoon ak effort ba ak coono bañ doon daj ba lii taxaw mooy danoo bëgg nu am jom jom ba jom jeex nag mooy bañ a des ginnaaw loolu rek mooy jom ngor ba ngor jeexit mooy bañ a ñaaw rek sa digganteeg sa borom sa digganteeg bokk yi ngay dund na kon ma war na noo góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci liggéey bi loolu sëriñ bi mi ngi leen koy laabire bu baax a baax mu mel ne sëriñ Cheikh mi nga xamante ne ni moom la yàlla dogal mu sos liggéey bi wax nañ ba tàyyi yooyu wax na ni adduna bu ngeen ko doon wër ba mu daj du ngeen fi gis ku ma tane yomal xëyam jennu jëm du ngeen fa gis ku ma gën a doy ci delloo ndénkaan te du ngeen fa gis lu ngeen may xeebe kon kooka mat naa bàyyi xel bu baax a baax waxoon na Cheikh Diop Tapet ni ko yéen ñi yàlla dogal ngeen bokk ci kër gi te di ci sonn war ngeen a sant yàlla ndax bu ngeen fi bàyyi woon kër gi dem fa neen mu ni ko néew ma du ngeen am lu baax de ndax lu baax bari na waaye lu mel ni lii ngeen fi bàyyi bu ngeen ko gisaatee da ngeen fee del siwaat te koo xam-xam ni waxiwut bakkan moo tax nu war a góorlu bu baax a baax a baax a baax sàmm ndono li fexe ba itam liggéey bi mu weesu fii mu nekk te loolu mën naa ne li fi nekk ci ak njaboot te aju ci biir kër gi ak seenu njaboot suñu wuysee ci liggéey bi dana weesu fii mu nekk te sun borom li mu wax mooy xu xuu anfusakum wa ahlikum naara te sëñ Cheikh ba muy wax ak mag ñi leen dajalewu ma leen ngir bëgg ngeen dem na képp dama bëgg ngeen jariñu di jariñant nit nag lépp loo xamante ne ni yaakaar na ne su ci duggee raw bu ci duggee war na caa dugal ak njabootam waaye ñëw yow képp wuy si bàyyi njaboot ga ca gannaaw bari na lu nu dal loo xamante ne nii foofa la nu toppee ndax bari na ci njaboot yi ñoo xamante ne ni seen relation ak kër gi fu dund yam fa lay yem ndax ñoom ñooy daw si socc ci kër gi bàyyi njaboot gi ñu ne ca leneen te gone nag bañ koy laaj dañ ni ko koo xamu ni ko daan ñëw ci baay rek la xam ah. kon moom kii ñëw ci baayam kooku la xam ki mu benn relation lié ko ak moom su la neen xewee itam nag jote du yomb moo tax ñu war a teete gone yi andi leen ci biir liggéey bi te it soññ mag ñi ñu jublu si ci biir liggéey bi liggéey bi liggéey bi yàlla képp la képp la neen nekku ci sun boroom rek tax ñu di ko sonn yàlla moom yi nga xamante ni moo tax nuy sonn ndigalam rek la kon ñu xam ni li ñuy jàngee ci jataay bi mooy bokk giñ bokk ak ñoom toog lu nu ko may mooy danoo bokk ak ñoom lu ñuy def waaye buñ bokkuloon lu ñuy def jataay bi doom moo tax Sëriñ Tuubaa daan wax ne adduna ak àllaaxira dañoo wuute bokkuñu mu ne adduna boo fi nekkee ak dara ji joo mën a am ku la soxla te sonn ca gis ga balaa yàgg dana la tëg bët waaye ëllëg yamal xeyam nag ña bokk lu doon def rek fay gis ña bokkoon lu ñuy def ñooñ doo nga fay gis moo tax ñu ñu war a góorgóorluwaat bu baax a baax xool fi ñu teg suñu tànk xool liñ daw dëgmal ko wuti ko ñu xam ni loolu am ko rek mooy suñu dam kon ñu ngi fàttali ñëpp ñu feddliwaat laxasaay yi bu baax a baax gën a góorgóorlu luñ doon góorlu adduna jeex na ba pare lu tuuta ci des tuuti li tax naan lu tuuta ci des mooy xam nañ ni kenn ku nekk ci ñun li nga war a dund ci àdduna da ci dund te àdduna waaye ku dee sa àdduna tukki te kenn xamul ci ñun kañ la kenn ci ñun xamul kañ la. kon nu war a góorgóorlu bu baax a baax ci liñ fiy jëf ñu sellal ko ndax luñ fi mën a def te sellut yàlla amut ci soxla sun borom li sell rek lay fay moo tax Sëñ Tuubaa daan wax ni. ndigal luñ leen fi mën a jox te yàlla tax ak ku leen ko mën a jox na ngeen ko jëfe ndax yàlla moo am na pay waaye la ne ndigal luñ feen mën a jox ak ku la ko mën a jox te yàlla taxut booy ba nga maanu ci ndax kala ko jox amutug pay te yàlla yoonam nekku ci du fay kon pertement rekk lay jur moo tax nu war a góorgóorlu bu baax a baax liggéey bi nag bokk na ci ay taxawaayam ñu war ko bàyyi xel muy màggalu Achirina Muharram di bis bi nga xamante ne nii ca tekki laxasaay gam doon liggéey ñibb si Touba te moo taxoon muy wax ni man zanna ni xayra xadimil Moustapha fa inna ni ak axdimuhu bi Moustapha ku sa jart ni man dara la lu dul liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëñ Tuubaa nee na sa njort nax na la man liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dong la te lu am solo la wax foofu loo xam ne mat naa bàyyi xel axdimuhu bi Moustapha la dama koy lëggéeyal ci li yonent bi tànn moom xoolul ni ko neex mu ciy lëggéeyal yonent bi ni yonent bi tànn ci loolu koy lëggéey te yonent bi diine lislaam la tànn diinun siwaa islaami laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu sëñ Tuubaa mos sa génn lislaam ñun ñi itam liggéey bii ñu nekk sëñ Seex ko rëdd ni nii laa ko bëgg ginnaaw ba ko suñ borom diglee mu am ci dégg ni kaay leen ma wax leen niñ koy defee ba pare jiitu ca kanam bis boobu nag bëgg nañ ñu ko xel bu baax a baax ndax suñ tuwaa daa waxoon du ma teg ci sama laxasaay mukk li feek suñ borom néew ma sa àjjana ngi ñuy duggal bis boobee ca la roppi ak laxasaayam ñibb si Touba bis boobee itam waxoon na ni mooy bis bi ku gënal ci ay bisam boo demee ci Mawaahibu Rahmaan ma nga fa nu am ci ay taxawaay yoo xamante ne ni naka jekk ñu ko cay taxawe ngir bis ba mën a dëppoo ak na nga xamante ni noonu la ko suñ Moussa nase woon ndax suñ Moussa daa waxoon ni bis ba na ak boroomam ci képp ku fa fanaan si boo xëyee mel nga ni liir buy door a judd ci set wecc ci ay bàkkaar loolu nag engagement la boo xam ne moo ko jël kenn waxalu ko juboo naag saa borom loo bis boo xamante ne ni boo ca fanaanee ñu jéggal la nag gàmm lañ ci xamaat laylatu xadar gàmm suñ tubaa ko wax ci jas bu laylatu xadar suñ borom a ko indi ci arxuraan waaye yombut doo tëdd rek bañ ni tey la laylatu xadar nga defin boo de déedéet yonent bi dañ seet leen ko ci fukk yu mujj ya kon dañ koy làmb waaye xamuñu fan la fa nekk histoire itam du ñu nettali ni bis sàngam ci weer sàngam ci at sàngam Sëriñ ceela ca la laylatul xadar ndax fukki fan yi yu mujjee day tëju ci jàkka ja kenn xamul lu mu nekke xam nañu lam ne woon ci biti lool la nekk ci biir muy jaamu yàlla gudu dakk ba keroog weer yi di feeñ mu génn kon bis la boo xamante ne ni naqari naa xam ñaari yi nag teg dañ ci baaraam muy guddi gàmmu ak bis bi Sëriñ Tuubaa fanaanse beneen bi ci des mooy 18 safar am nañ ci ay liggéey yoo xamante ne nii mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax gani sëñ yi nga xamante ni ay nawle lañ ci diine tey màggal si ñoom la ñu sëriñ bi dénk ñu war a yor seenu toppatoo ci 18 safar lu tolloog juróomi fan. te loola itam sëñ Cheikh la mu daan wax ni bisub sëñ Tuubaa ku ma ko moomale ma moom ko waaye bañ ma doone la wut dara kenn du ma ci ëppale suñuy taxawaay danu ko firi kon nanu nanu bàyyiwaat xel liggéey bi muy joo ci sunu bopp joo ci sunu njaboot. def ci sunu man-man sunu kemtalaayul kàttan sëñ Cheikh de ba muy wax ak sëñ ci Dar Salaam Dar ma dañu ko liggéey bi yàllaa ma ko sant ma sant leen ko lu ci waay man na ko ci def lépp looy wut nag te wutoo ko ci yàlla doo ko am ndax sunu borom rek mooy mooy moo yor lépp moo yor lépp. li di wax nag baat bu yàqu la yàlla waxul kenn dara ankay da nga naan yàlla waxuma dara waaye yàlla wax na kenn dara am na ñu muy waxal loolu wax ju yàqu la moom da ngay dégg naan yàlla waxul kenn dara. yàlla am kay ba léegi suñu borom am na ñu muy waxal boo la neexee na nga ne yàlla waxuma dara waaye liggéey bii daal liggéey bi yàlla la boo xamante ne ni li ci nekk ci aw yiw yéene nañ leen te bëgg nun ñëpp nu maasi ci góorgóorlu am na ku doon laaj sëñ Mbàkke Mouhamed ni ko sëñ Touba fi indi addiye mu ni ko waaw mu ni ko sëñ Mourou Moussa fi indi toolu àllarba sëñ Mbàkke ni ko waaw mu ni ko sëñ Cheikh fi indi daayira sëñ bàkki ni ko waaw mu ni ko yow loo fi indi sëñ Mbàkke ko man ab sàmm laa ci yooyu ñii loolu rek leen fi bay sàmm ba dara du ko ruur te wa maa alal xalaf illa an yasuna asara salaf ki wuutu dara waru ko lu dul sàmm lim fi fekk loolu rek waral seen coono bi du wut mbooloo taxu leen a jóg wut xaalis taxu leen a jóg ndax bari na ci mbooloo mi ñoo xam ne yéen a ngi leen di door a teg bët te yit xamu leen seen yitte. na leen ni seen dox bariwut te am nañ jom yi liggéey te mën nañoo yor seen bopp te doyloo nañ seen wërsëg ndax foofa rek la leen waajur wi taxal ñoom foofa la leen tegoon. foofee rek la luñ joxoñoon kon nanu dollee góorgóorlu bu baax a baax nun ñëpp xam nañ ni suñu ñaar téeméeri ak suñu téeméeri yi nga xamante ni daanaka at mu ne benn yoon lañ koy joxe wala buñ tasee ci jataay wóor nañ nu yorut kenn kon loolu taxul ñëw waaye li tax ñu jaxasoog noonu mooy bëgg noo dimbali moo tax maam Cheikh Mbaye ci lu ko waxoon ni lillahi xawmun ida xallaw bi man si mansilatin xallatin nada wa xallatil jaww anwaar tastaaquhum kulla ardin yansiluuna biha ka annahum li biqaa ilahi amtaru nee na sunu borom am na ay jëmm yoo xamante ne ni bu ñu wàccee ci ab dëkk ni ndoxum taw di soppee suuf noonu la ñuy soppee dëkk ba ci ay leer sëñ Fallou tekki ne ida raaytahum aw kunta zairahum bi yumnihim faaraqatka dahru aw saru sëñ tu sëñ Fallou ni ñooñu day boo leen gisee wala nga ziyaare leen tàggoo ngaa ki bàkkaar adduna ak àlaxira sëñ Samba Bay door caateeg ni ndax ci siyaare googee nga leen di ci la suñu borom di dàqale lépp luy ràgg ak ñàkk ci la lay xëcc la yëpp ay may kon jataay bi jataay barke la boo xam ne kenn ci ñun mënu koo keree coobare suñu borom ak yërmandeem rek tax mu def ko te dara mayuñu ko lu du léggéey bi nu yëngu kon nan góorgóorlu bu baax a baax sëriñ bi kàddu yooyu rek la doon wax ni naa leen ko fàttali mu ngi leen di soññi bu baax a baax ngeen gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax liggéey bi kat lépp jaamu yàlla la liggéey bi wuutu na daaray tarbiya mm-hmm. liggéey bi wuutu na daaray tarxiya liggéey bi wuutu na daaray tasfiya te yooyu yëpp fi mu mën ta ñàkk ci ab jullit te espace bu ñu ko mën a defee fi mu doon bëreetul ko mën a yare ak fooy yare ndax environnement bi moom yàqu na fu mbon gi aggul moom suñu borom desewu ko ci kaw suuf ku bonut nag am na waaye fu mbon gi aggul moom suñu borom ko ci kaw suuf kon dafay mel ni yar jafe na ndax environnement bi yàqu na ku mën a yare itam koo xam nit koo xamante ni soppiku du soppiku wenn melokaan la yor boo ko fekkoon ci biir néegam na mu toogee boo ko fekkoon ci biir mbooloo mi wenn toogin woowu la yooyu itam bëreetut ñu néew la néew lay doon ci ci jaam ñi kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax intellectuel na dëgg dëgg dëgg dëgg ni ko tubaab bi firee firiwul lool parce que tubaab bi ku diplômé ci làngam lay wax waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni moo ëpp xam-xam ci ñi yàlla bind dañu alkayisu man daana nafsa intellectuel dëgg mooy koo xam daa xeex ak bakkanam ba not ko nga xam ne fu ko neex fa lay jëmale bakkanam wa amila ma baadal mawt nag nee na li muy jëf lépp nag gannaaw dee tax mu di ko jëf waaye fii moom dara tax mu fii jëf am solo la sëriñ Cheikh mi nu ko digaloon nag daa waxoon ni dama bëgg ku yor carton ngeen def ko ni koo bokkal nday ak baay lu tax mooy bu ëllëgee yomal am fu ñu yàgg àqañu fa tagal moo nu fa tardeel mooy yi ñuy defante suñ biir te yooyu bu fekkente ne ni carte yi dox na suñ diggante duñ ko toppante ndax kenn ku ci nekk ka nga bokkal ndey ak baay lu baax dong nga ko yéene te lool la ci doon wax ni nag bu ngeen lijjantiwul seen diggante boo ëllëgee yàlla dana ko lijjanti te yoonu Cheikh Mbacke du ca nekk kon nanu gën a moytonte bu baax a baax nanu gën a jegelante suñuy xol gën a boole suñuy xalaat ngir taxawu lislaam loolu rek taxaw nu def ko du daayira boo xamante ni par parloo la du daayira boo xamante ni concurrence ci mbooloo la yooyu yëpp amu ci dara amu ci njëriñ mbooloo mi lu mu bari bari bari buñ jubut tasaare mbooloo mi kenn ku ci ne foo jëm moo ko gën ci ñun ndax sëñ Bakki Mouhamed daana ko wax daana wax nit lu toll ni li ma yor dolli ko waat ci ak ñuy dem ba mu des kenn laa yemal jub dong laa bëgg ci jub rek boo jubut fi doon ni koo mën a doon ak koo mën a tuddoo booy boo xamante ne nii sa mbir bu jagee ci njëlbeen giit it mujj ko dana dana suugi ñàkk ndax yàlla moom li mu dana ko def waaw ah, ba mu ne salaamun mooy jàmm ku ko bëgg ala man ittabaa al huda mooy da ngay ci yoonu jub waaye leneen loo mën a nekk nag te juboo ba pare di am jàmm nanga xam ne njëlbeenu toroxte la daa niroog aaju jufaju faj waaye bokkuñu te muj gaa ko yónnee ñoo ngi jégalu bu baax baax wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. jërëjëf diwum diw ma la mu diwoo la ko diw. waaw diwum diw ma la mu diwoo rek la ko diw yal na yàlla guddal sa fan donc ba nga xamee ni sëriñ bi doyloo ko doyul dafa am lu muy jur ndokk ba nga doyee lii woowu la déey la waxul ngay jottali jërëjëf na la seet la xam sa poids noo toll mu yabal la mm. te nag ñi jàng tubaab dañ naan j'ai pas confiance en toi c'est pas grave loolu garaawul ndax da ngeen ko seqal wóoluwuma la jërta xeex jërta xuloo as gor li muy daw mooy je n'ai plus confiance en toi la yal na la yàlla bàyyi ak sam xel yal na la yàlla bàyyi ak sam xel macha allah kontaan nañu bu baax a baax. jërëjëf sëriñ Ahmadou kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom moo jóge woon ci sëriñ bi ñu ko doon jotli mbooloo mi. di nuyu sama mbokk jigéen ñi. soxna maa ngi tudd Aminta mbay ñu koy wax Layla ma yore commission finance bi sëñ Mourtala di présenté commission yi dafa fàtte finance te finance mooy le nerf de la guerre moo yore mbir mi waaye nag waxaguma waxi finance damay waxtaan ak yéen jigéen ñi sama mbokk jigéen ñi moo tax ma wëlbatiku nii jàkkaarloog yéen. ci turu Ndeye Fatma Mbacke mii nga xamee ne moo yore wilaya femme muy kuréel gi nga xamee ne moo ëmb jigéen ñi ci ci daayira bi mu nekk kuréel gu am solo guñ naw goo xame ne foo dem ci ci ci ci ci ci ci gox yi nga xamee ne mm, daayira baa ngi fay dem jigéen ñaa fay ëpp doole ma leen di wax ne soxna ndey nee na mi ngi leen di soññ yéen jigéeni Kébémer ngeen am pas-pas li ngeen di tàmbalee mooy ñi ci mën a jàng texte yi nañ ko jàng buñ ko jàngee ni ñu war a organiser na leen seen mbokk góor ñi jàppale ngeen organiser wu te it fuñ ci woote waa wilaaya fuñ woote wilaaya ñu am ay répondant ndax am nañ ay kuréel yoo xam ne wilaaya yëpp fa la ñuy daje ci jiitul soxna ndey mii muy groupe whatsapp walla muy yeneen kuréel kon nag maa ngi leen di wax ne eh, na ngeen fexe ba foofa ngeen bokk ca ndax bu ngeen ca bokkee dana tax ngeen xam nii ni jigéen ñi di dundee ci biir daayira bi li ma ciy mën a wax sax ci dundu jigéen ñi mooy ah, daanaka jigéen ñi ñoo man ci daayira bi fun mën a dem jigéen ñaa fa man bu dee teg jigéen ñaa man bu dee liggéey jigéen ñee man bu dee leneen nit jigéen ñee man kon nag bu leen kenn raw na ngeen fexe ba tolloog jigéen ñépp waaw du soxna tey ma waxa loolu la yaa ma ko <laughs> waaw léegi nag euh, moom euh, ni bëgg rek mooy ñu xam fan bëgg a jëm ndax li li ci mbirum daay bi moom sëñ Bas mii wax na ko ñii ci kanam ñii di war a wax it danañ ko wax man duma ci mën a wax lu bari ndax xëy na nii ñu koy waxee ak niñ koy jëmmale man duma ko man waaye nag sama kàddu moom mooy kàddu soxna ndey gii laay li xamal leen ne mi ngi leen di déglu tëjuti buntam kenn sax tëjut bunt yi képp ku ci am loo bëgg a xam walla loo bëgg a def wala lu la jaaxal wala organisation ak noo ko bëggee ak foo ko bëggee bu ngeen ko contacter dana leen boole ak ñoo nga xam ne danañ leen taxawu ba na ngeen ko bëggee ngeen amee ko côté bi may waxee bi ci des nag mooy côté finance bi bi nga xamee ne man moom maa ko jiite ndax jigéen ñi raw gi ma leen di wax wax ne jigéen ñee raw bu dee joxe seen doole laxasaayu liggéeyal seen moroom jigéen ñi kenn rawu leen ci bu dee làmb seen poos joxe li nga xamee ne mooy warteefu daayira bi jigéen ñi kenn rawu leen ci kon nag foofee laa leen di woo na ngeen xam li ngeen li li nga xame ne moom mooy seen warteef ak. ak ak ak ak ak ak waaw nee waaw kay wax ko. nee na kon nag ni soxna Mbodj nee na bu lislaam taxawee jigéen yaa fa man kon nag bravo jigéen léegi nag kon li ma bëgg ngeen def ko mooy ngeen xam li leen liy warteef wi xam naa ci biir yi wax danañ ko wax buñ leen ko laajee comme ni ko sëñ Bas waxee nañ xam ne dañuy doxal yoon wi dañuy doxal mouvement bi. joxuñu ko sëriñ muy def ci poosam joxuñu ko ab keneen ku mën a doon muy faje ay soxlaam mbooloo mee ko yëkkati ci biir mbooloo mi lañ koy def mbooloo mi tamit am nañuy ay ay ay ay action yoo xam ne dañ koy def jëmale ko ci jigéen ñëpp noo ngi forme jigéen ñi ñoo ngi taxawal ay caisse d'épargne ci jigéen ñi sànq sëñ bi waxoon na ana sëñ Diouf waxoon na social waxoon na affaire euh, mutuelle de santé te bu ñuy wax mutuelle de santé jigéen ñi ñoo ci raw ndax jigéen ñi ñoo yóbbu goney hôpital ñoo yóbbu goney école ñooy faj gisuñu benn góor li góor jigéen ñi def góor ñi defuñ ko kon nag li ñuy taxawal nun jigéen ñi lañ koy defaral kon nag nan góorgóorlu bu nu kenn raw bu nu ci kenn man fu ñu leen woon a ngeen fa wuyu te it nee na soxna si nee na ànd bi dafa bëgg mu nekk ànd bu dëgg ànd boo xam ne dañ koo teg ci kaw pas-pas amul amul amul ngiiroo amul xaa ŋaayoo amul da loo naqari ci nit walla loo gis ne nit def na ko te waru koo def te tegu ko ci texte yi nga xame ne moonu régir ñun ñii nañ mën a taxaw am ful lay taxaw ne ko lii nga def du noonu ndax nu noonu la ñuy dundeek ñëpp fi mu ne nii mën na nit mën naa wax ba noppi ma teggi ko teg fee ndax fa ma koy teg a tax ma ma di ko mën a teggi loolu ñoom ñii may nanu ko kon nag tamit yéen na ngeen fexe ba li ngeen war a xam ngeen xam ko bu wax jotee ngeen wax te bu leen jox kenn seen parole nag na ngeen di waxal seen bopp wasalaamaaleykum